li ma waxoon it euh, mooy ci football bi tey yàlla defal nañu lu am solo kon lu am solo loolu peuple sénégalais laa ciy jëkk sant sant ci joueurs yi ak encadrement technique waaye presse bi ñaax bi ma leen di def bu tuuti la football léegi ñépp a ko mën waaye nag suñuy gone mën nañoo football jomit am nañ ko te xam nañ ne fii nu jëm jom ak sa peuple jàppale la mooy tax nga man fa àgg mooy ñu jël coupe bi ndax bi ñu jotagul indépendance ba léegi ñi ngi daw mënuñoo jot ci coupe dem nañ fi finale dem fi demi-finale dem fi quart de finale coupe du monde waaye jëlaguñu te daa jot ñu jël ma jàpp ne nag yéen ñëpp bu ngeen ànd ñaankat yi ànd ak état ànd ak encadrement bi yéen presse bi ngeen seet ñi bëgg lu baax ngeen jël ko seeni wax ngeen jàllale ko ndax ndamu Sénégal ndamu ñun ñépp la yaakaar naa ne Tunisie moom dañ koy gañ mu dese ñu Côte d'Ivoire wala euh, astafurla Nigéria wala Algérie baal ma yaakaar naa bu ñëpp mobilisé woo loolu lu war a mën a nekk la pour ñu mën a gañee ndax jàpp naa ne lu jot la kon nañ félicité gaynde yi ak encadrement bi mais nañu mobiliser ñun ñëpp te bañ a critiquer bàyyi encadrement technique bi ndax dañ leen a fay pour ñoom ñu am résultat te it joueurs yi it dañoo bëgg seeni performance tax ñu jar ay milliards ndax milliards yi fii lay dellu si kon léegi dootu po dootu po kon jàpp leen ci ñoo ngi félicité gaynde yi di leen encouragé di nekk seen ginnaaw man bu ñu demee final bëgg damaa dem tàccu ji comme ñëpp sama warugar la jël naa billet ba pare xëy na yeneen tam yeneen ñeneen.